Gana xam leen ko bu baax mo ngi ni tok ma ngi fek le mara di peuple borom football borom lamb ji dila ñaanal dila ñaagal señ bi ma ngi lay ziar. wa ma ngi delo ziar di santat yalla bu baax ba di julli ci yonent bi di gërëm ñi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp ndax tay tay sama rak sama xarit sama serigne sama lepp mo xewle muy señ fallu ma mom ñu bokk ben koñ fele ci Touba bokk fenn fu yaro ñu bok fenn fuñu yaro diko di ñaanal jamu bu baaxa baax barki Serigne Saliou lim bëgg ci aduna mo xam yalla nako yalla defal gan gi nga xamne mom lañ tuddé na dundu ta am ndey ak bay barki serigne Mohamed barki alquranu karim nan nga gisé taxawaayu alburax ci lamb parce que depuis ñu ñëw ba ma sha allah wax sa mbax way du la wàññi dara ñi ngi yéegal lamb quoi ñi ngi yéegal nifo wu lamb waaw di santat yalla rek bu baaxa baax di leen ñaanal yalla parce que ñom ay nit la ñoo xam ne nattu nattu nattu nattu lañ am ci làmb ñoom ñoom même bu dul dara dañoo bëgg làmb ñoom buñ tëggee dañuy ñëw suñ tëggu dañuy ñëw dañuy dund làmb dañoo bëgg làmb moo waral tey ñu xool li nga xam ne mooy suñu culture nationale muy làmb je ñu jël seen alal di ko ci investir kon dañ leen ñaanal yàlla rek yàlla buñ ci gis dara lu ñu ragal yàlla kàttanal leen ci rawatina ki nga xamante ni tey mooy Abdou Aziz moom wax dëgg yàlla sama nit la seq nañ lu bëri man ak moom di ko ñaanal yàlla bu baax a baax Abdou Aziz Ala Ndiaye di ñaanal itam Baye Ndiaye Baye Ndiaye moom jëndal na ma benn iPhone waaw jëndal na benn iPhone nag. xam naa xam naa loxo yi ko teg moo yegg see gudd ci man. Ah, waaw moom <laughs> moom sama waay la. maa ngi koy ziar bu baax di ko ñaanal jàmm bu baax a baax moom Baye alburax lépp luñ bëgg seen àdduna yàlla defal leen ko. di nuyu itam kenn koo xam ne ci man muy Serigne Abdoulaye juuf dama woo këram. bëriwul lu ma koy def ma déplacé wu dem mu ñawal ma jeesneer bi jëlu sama mesure jëlu sama dara ñawal ma ko mu yem ci man képp yëkkati ko jox ma ko. dégg ko baax dem ba ba ba Niger. Chine euh, jënd fa montre bu seer bi yëkkati ko joxaat ma ko. loo loolu doyit mu woo wëllëreem ñu koy wax Basirou Ka mu woo ma ne ma Sa Touba may naa la terrain ngir Serigne Saliou. wóor na Serigne Saliou kon kon kon xam nga ne xam nga kon ñooñu o kooku aw ma fayam maa ngi koy ñaanal ngir Serigne Saliou mi ñu bokk moom Serigne Abdoulaye Diouf li mu bëgg ci àddunaam defal tey ji sax yaakaar naa la war a dem ab voyage bu gàtt rek ñëwaat waaye ñu ngi koy ñaanal ñuy ay seex ba ngay dem woo moom yoon sama waay nga faaw ma yau, fa ak yow <laughs> incha allah te xam naa bu ñuy dem ci Basirou Ka ñooy ànd bu soobee Serigne Touba maa ngi sama xol sedd na di len ñaanal yalla barke sayidina Muhammad, di ñaan ci rew mi jamm yalla saxal fi jamm barke alxuraanu karim amna solo sita Ama sita Giri alburah ñom contrat bi ñu def moy vainqueur Giri ak Ama la ñuy jox sita, mais tay amateur yi damay samp ab laaj ne len sita Ama sita Giri ban combat mo dakk waaw waaw sita Ama nak lamb dakk ko sita Ama Baldé lamb dakk ko man bu xaj wax nañ vainqueur yi mais man bu don sama sago amaa la jox ñaari avance mu téye rek waaw lu mu mën di def ca làmb jooju bëreeg bëreeg Siteu ndax làmb dàqu ko làmb jooju. làmb dàqu ko kooku xajul arène national Siteu Ama loolu la bu ñu ko tegee arène nationale moom booboo ñu jël ay yeneen i yoo xam ne dañuy bàyyiwaat espace bu bëri wërale ko ci suuf. def waaw def pëjëm bu bu mag waaw. ok làmb jooju tey lan la ci amateur mën a xaar. wa lamb manam lamb jo xamne ne dañuy mandi lepp dañuy sour lepp dañuy doy lepp ndax budé tous xam nga da nga ñew ñëw lamb benn mbeur bi rek moy tous sa xol sedd mais da ngay ñew lamb jo xamne ama bal de taxaw fi bu tuusee sa xol sedd nga xaar Siteu bu tuusee sa xol sedd ba paré ñom ñaar ñëpp kenn ku di nekk côté mu duuy ko bam fess ah lolu lolu <laughs> àdduna sé lolu benen affaire la di ñaan yalla bu baaxa baax nak di ñaanal yalla suñu mbokk julit suñu lepp muy nit ku bax ku yaru ko xamne yalla dogal na sax mosu ñu jissante mak mom suma su budu ci lamb la koy seen nat bi yegon ci kaw muy mawdo muy nit ku am yar ko xamanteni communication dama koy seetaan bu baax du dépasser nit du wax nit lu ñaaw du ko def ay waxam nit ñi dañ ci jangat lu bari ngay gis chaque jour ngay gis sax ñuy dag ay waxam di duggal ci internet bi xalé yi di diko jëlat diko di di ci dugal seeni i seen i affiche ngir ay kàddoom yu sell kon dañ koy ñaanal moom moom Maodo ci barkeb turandoom barkeb alxuraan ji nga xam ne mu ngi ci dëndam yàlla bu mu gisati dara lu ko jaaxal ci addunaam lépp lu mu bëgg ci addunaam moo ko xam yàlla na ko yàlla defal nit ku baax la yàlla bu la bëggee da lay teg nattu gaay gaay yu baax yëpp jaar nañ ci loolu loolu du dara ci moom li muy defar ci moom moo ëpp lu muy yàq tey jii nii loolu noonu am na lu mu yokk ci moom loo xam ne moom sax xamu ko ndax am na ñoo xam ne daawu leen dégg am na ñoo xam ne xamu leen woon tey jii nii bëgg nañ ko am nañ yëg-yëg ci moom am nañ coxeel parce que nag deret dafa foor buñ laalee sa deret da ngaa war a yëngu tey lii mooy wane ne tey ak lu mën a xew ci àdduna lu jëm si ci kaw giri moom day taxaw ci kanamam kon dañ koy ñaanal yàlla moom yàlla defal ko jàmm barke Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ne moom la ñu yaakaar gannaaw yàlla ak yonent kontaan naa si ñoo gën a kontaan jërëjëf. maanaam lu tax nga yàlla. maa ngi toog ak Serigne Fallou ki nga ne moo waral xew bi ginnaaw bi ñu bi nag ci monde yëpp yi benn la maa ngi lay nuyu baax di la ziar. maa lay sant bu baax di la gërëm di la di la sant bu baax ci teewaay bi di sant nit ñëpp ndax mënuma leen a fay xewle ñëpp dagg seen yi te ñëwal la wax dëgg yàlla mënu ma cee fay kenn maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm. tey nga xewle monde de la lutte ñëpp teew parce que ñu jëpp samedi ak lañu am jot mais tey du samedi du dimanche du lundi tey ñëpp teew. wallaahi loolu sax moo ma jaaxal ndax. ñu bëri woowu ma leen wallaay yow mii damaa woo Abdou Sène na ko wool ma wool ma Modou Anta wallaay ñu bëri woowu ma leen waaw euh, démb démb démb laa koy soog a esat yi ne leen suba dañuy tuddal soxna si foofu laa yem wallahi ñu si bëri ñu ko yëg nit moo koy wax nit nit moo koy wax nit waaye amul kenn koo xamante ñaari ñu si bëri woo naa wax leen ko waaye nag nit ñi nit ñi xëy na ñoo toll noonu ci man ba ku ci yëg sama dara dagg sa yite ñëw ma ne ku ma ci yëg daraam it noonu laa koy defee waaw xaaruma leen ci dara ku ma yëg daraam rek noonu laa dagee sama yëte dem ci moom. lan ngay wax soxna si. waaw di ko sant rek di ko ñaanal yàlla suñu borom. nga sañse na <laughs> man de xam nga ne tudd la woote woon yàlla xam na ko wallaay tudd rek laa woote woon. ba tey jii jàkkaaroo maa ngi nit na ko damay ngénte damay tudd rek laay wax waaye xëy na nit ñi léegi leen di la ba léegi-léegi noonu lañ la koy bëgg a fayee waaw di sant di sant di sant Sa Touba mii bu baax ndax day sama xarit day sama wóllëre suñu diggante du tey suñu diggante du tey dafa yàgg lool depuis bi may nekk tout tànk nekk si daara ji jàng moom ci koñ bi foofu la dëkk man maa ngi si biir daara ji jàngee foofu waaw ba suñ borom def tey di xew yëpp xew lii waa di ko ñaanal yàlla rek wallahi ak ñi fi teew yëpp sëñ Moustapha Seck sëñ euh, Gora Dioum sëñ Saliou Samb ak ki nga xamne mo la tuddé tour bi muy Modou Dieye Sène waaw mom sama xarit la sama wëlëre la sama nit la mënu mako fay waaw waaw mënu mako fay wallahi di len sant di len gërëm waaw euh, di sant di sant tëyër bi ma bi ma ñawal lii waaw muy maam Thierno borom Massi Ndiarème waaw tierno alma alma bilma ma ngoy sant bu baax diko ko gërëm ndax mom mo ñaw mo ñaw yéré yi waaw ta ñawé ko yéné woo ma na ma bu la kenn ñëwal maa lay ñëwal wallaay ñu koy sant bu baax di ko gërëm. naa ci yow baax mu danta maa ngi ñaanal waa làmb yëpp waaw ndax li a seq ak ñoom wax dëgg yàlla ku ci xewle ma demal la su ma xewle ñu ñëwal ma alhamdulilah bor la rek ñu fay ma ko waaw ndax bëri fu may teew ci ci ci monde làmb foo xamante ni bu ma demee sax cër bi may jox yàlla xam na ne xëy na nekkul ci man waaye lu waaye mën di am rek ci àdduna te amul yar daanaka perte la waaw yar mooy lépp jërëjëf mu daan ETDR établissement Touba Darou Rahman di entreprise bu mag bu BTP travaux de bâtiment génie civil manam lépp lu jëm ci réhabilité wala réfectionné dañu ciy taxaw établissement Touba Darou Rahman su la neexee mën nañ jox gros œuvre ak second œuvre gros œuvre moi li ci fondation élevé tabac, coulé ak raax ci second œuvre bi nag électricité ak plomberie ETDR amno nañu ay boutique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 établissement Touba Darou Rahman ñi ngi cité Fadia villa numéro 259 wala ngeen 77 575 50 25 33 824 57 43 Amnon mail itamit boo bohamantini ETS Tuba Darou Rahman gmail.com mën nañu laa defaral itamit boole la ak suñu ay ouvrier prestation de service bu muccu ayib ngay am de bureau de dernière génération amna ci ETDR location de voiture manam ETDR mon pays, dara moomeelu réew mi la établissement Tuba Darou Rahman yéen doomi réew la